juróom-ñaareeli fanu campagne yemoo ko juróom-ñeenti fan ci weerum février dal leen ak jàmm ci seen journal de la campagne li ci gën a fees bokk na ci Barthélémy Dias mi nar a tàmbali campagne bi ginnaaw bu mu lëkkaloo ak Idrissa Seck Mamadou Kassé di jaaxoon na baaraamu tuuma président Abdoulaye Wade waaye it wax na ci lëkkaloo Idrissa Seck ak Khalifa Sall Idrissa Seck moomu ma nga woon foofu ci Koungheul di dalal xelu askan wi candidat bii di Ousmane Sonko di njiital Sonko moom nag wax na li nga xam ne moom la bëggal jigéen ñi li ma leen ko waxe woon li gën a fës ci bopp xibaaru campagne bi mooy Barthélemy Diaz mi nara nag dugg ci campagne électorale bi moom nag démb la ñu xamal ne Macky Sall ginnaaw gaz ak pétrole bi nga xam ne am na fii ci Sénégal mi ngi mbébét ñetteeli mandat waaye it ci kàddu meeru meer moo Sacré-Cœur boobu moom ne nag waxi Macky Sall taxul kenn duur sa doom. Le Sénégal nous appartient. Le président Macky Sall avait parlé de la patrie avant le parti. Il n'a Il n'a respecté sa parole sous absolument aucun engagement. Je mets le président Macky Sall au défi. Sur chaque région, il avait promis une enveloppe entre des dizaines, voire des centaines de milliards. Il n'a respecté aucun de ses engagements. Aucun de ses engagements, y compris son engagement de réduire son mandat présidentiel. Donc cet homme ne mérite pas notre confiance. Cet homme ne mérite pas aujourd'hui notre euh, considération. et cet homme ne mérite pas aujourd'hui aujourd notre mandat. Et je terminerai surtout en disant aux Sénégalais qu'ils sachent que le président Macky Sall ne fait pas un second et dernier mandat. Le président Macky Sall fait son premier mandat au vu de la constitution actuelle en vigueur. Et vu les enjeux de l'heure, le pétrole et le gaz, j'ai interpellé personnellement le président Macky Sall. Il n'ose pas me répondre parce qu'il sait très bien que sa parole n'a aucune crédibilité. ça sera son premier mandat et s'il obtient bien sûr, par un vol et un hold-up électoral, que les Sénégalais sachent qu'en 2024, il va briguer son troisième mandat, de par la Constitution, sera son deuxième mandat. Macky Sall me regarde, il bien qu'il en train de viser un troisième mandat, s'il obtient un second mandat. Si les Sénégalais ont choisi d'être des spectateurs, qu'ils acceptent le moment venu aussi d'être des spectateurs, mais ce sera des spectateurs pour encore dix ginnaaw bi maître Abdoulaye Wade nag daal di waxee aji wote yi ñëpp ñu daal di lakk seen carte wote ñi féete ak Macky Sall ñu ngi wéy du tontu Mamadou Kassé nekk directeur bu SNHLM waaye nekkit kàngam foofu ca APR bu Tambacounda moom nag tontu na ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade Sele Mbaye ak Youssoupha Mine ñooñu fa teewaloon. li mu gënoon mën a def mooy nangu li yàlla dogal parce que gis nga loolu dafa am solo ci àdduna avoir la capacité de d mais nag doom dafa neex. Euh, moo tax yenn saa yi boo nekkee ci nguur euh, ñuy ñaan yàlla toujours lépp loo xamante ne lu mel ne doom nga xamante ne dafa jege xol euh, mu bañ a la jege ci exercice pouvoir bi parce que ci moment yi la ñuy comprendre ne dafa metti mais Ablaye Wade li may wax rek suñu maam lay Wade mooy am na expérience bu ñu dund ak moom législative yi lay dellu parce que élection pour élection législative yi lay dellu ñëw na fii. fu ne mu dugg fa nit ñi di génnee fu ne di ko tàccu ñu yaakaaroon ne dana toj dëkk bi tojul fenn te fu mu mujjee wax jooju teg nañ ko nële donc jàpp naa ne aussi sénégalais yi ñoom mën nañ laa jaarale fi ñu jaarale waaye xam nga am ci Ablaye de cofeel loolu moo ñu gën a yomb euh, euh, xalaat leneen ndax même bu dee ñetti fan sax jiite nañu ko même bu dee ñetti fan sax jiite na ko suñu kilifa man de mësumaa dégg président Macky muy wax ci Ablaye wàdd lu ñaaw du mosuma ko dégg sax muy wax ci kenn lu ñaaw wala kenn lu bon donc ñun it dañuy topp ci yoon woowu ci yiw gi nga xamante ne moom lay doxal yaru gi nga xamante ne moom lay doxal ak humilité bi nga xamante ne moom la yor mais dama jàpp ne Abdoulaye Wade xamul boppam. ci Mamadou Kassé la ñuy desandi ba léegi ginnaaw nag ak meeting bu mu amaloon foofu ca Tambacounda moom nag wax na ni maître Abdoulaye Wade wala ñëw fii ci dëkk bi di fi woote fitna waaye it wax na li nga xam ne mooy lëkkaloo Khalifa Sall ak Idrissa Seck nee na loolu nag tàngat ceeb rek la ndaxte jéemoon nañ ko ci élection législative yi waaye it mu jéewu la antu. li mu gënoon mën a def mooy nangu li yàlla dogal parce que gis nga loolu dafa am solo ci àdduna avoir la capacité de dépassement mais nag doom dafa neex. Euh, moo tax yenn saa yi boo nekkee ci nguur euh, ñuy ñaan yàlla toujours lépp loo xamante ne lu mel ne doom nga xamante ne dafa jege xol euh, mu bañ a la jege ci exercice pouvoir bi parce que ci moment yi la ñuy comprendre ne dafa metti mais Ablaye Wade li may wax rek suñu maam lay Wade mooy am na expérience bu ñu dund ak moom législative yi lay dellu parce que élection pour élection législative yi lay dellu ñëw na fii fu ne mu dugg fa nit ñi di génnee fu ne di ko tàccu ñu yaakaaroon ne dana toj dëkk bi tojul fenn te fu mu mujjee wax jooju teg nañ ko nële donc jàpp naa ne aussi sénégalais yi ñoom mën nañ laa jaarale fi ñu jaarale waaye xam nga am ci Ablaye de cofeel loolu moo ñu gën a yomb euh, euh, xalaat leneen ndax même bu dee ñetti fan sax jiite nañu ko même bu dee ñetti fan sax jiite na ko suñu kilifa man de mësumaa dégg président Macky Sall muy wax ci Ablaye wàdd lu ñaaw du mosoo ko dégg sax muy wax ci kenn lu ñaaw wala kenn lu bon donc ñun it dañuy topp ci yoon woowu ci yiw gi nga xamante ne moom lay doxal yaru gi nga xamante ne moom lay doxal ak humilité bi nga xamante ne moom la yor mais dama jàpp ne Abdoulaye Wade xamul boppam. ñu toll ci ay fanweeri journaliste caméraman ak photographe ànd ak ñi nga xam ne ñooy campagne ngir bëgg a nekk président fii ci Sénégal liggéey bi metti lool waaye nag seen jafe-jafe ak seenum nekkin lépp ñu ngi koy def ngir rek liggéey bi daal di aw ci yoon. ginnaaw Koungheul Idrissa Seck bu Idi 2019 mi ngi woon foofu ca Malem Odar moom nag woo na ndaw ñëpp ñu daal di dem vote ji sécuriser seeni i vote waaye it wax na ci ñàkkum xëyu ndaw ñi moom Idi nag nee na bu bés baa na ñëpp daal di dem vote waaye li nga xam ne nag dem ci wàllu mbay bi boole ko ci li nga xam ne mooy ay mbébétam. li am solo te moom laa waxoon nee président sortant bi amul sax problème avec la classe politique mais problème bi mu am buñ ko am ak ñi te ñi mooy peuple sénégalais pendant sept ans jox ko seen baat jox ko seen jox ko seen jox ko alal ji mu jël ko di ko xeexe di ko nappaaje population bi alal ji di pasar pasare ko bàyyi fi askan wi li ñu soxla te wi soxla mooy ñu jàppale leen. ci éducation jàppale leen santé te waxee enseignant yi ñu ngi jooy boo waxee ak personnel médical bi ñu ngi jooy boo waxee ak baykat yi ñu ne sonn allah pour que mu abal ñu réew mi dem yoon jëwriñ bi denk wàllum justice di garde sous Ismaïla Madior Fall nekk kàngam politique foofu ci baax ñi moom nag mi ngi woo ñu mu bokkal parti ñu bañ a topp maître Abdoulaye Wade ci kàddu yi nga xam ne jokkati na ko fi ndax jàpp na ni yee fitna rek lay def ñu daal di jublu nag ci liggéey bi ngir ak ki nga xam ne moom la ñu wóolu daal di koy fal muy président Macky Sall Yaya Sissoko moo ñu fa teewaloon. Euh, dans notre pays, euh, on a eu la chance d'avoir d'anciens présidents. Senghor a été un ancien élaborer un statut pour les anciens présidents de la République, pour que l'ancien président de la République connaisse ses droits et ses obligations, et comprenne aussi que du fait du rôle qu'il a joué dans l'histoire et du fait qu'il appartient au patrimoine national, il y a une obligation comportementale qui lui incombe. Euh, mais il, avait compris que s'il fait cette loi, on va dire que c'est pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait cette loi. Abdou Diouf, moment envisagé d'avoir une sur le statut des anciens euh, chefs d'État ou des anciens présidents de la République, cela n'a pas été fait. Ouad aussi ne l'a pas fait. Mais je pense d'ailleurs que euh, le président Macky Sall devrait envisager euh, qu'on ait au Sénégal une loi sur le statut des Sonko bu coalition Sonko 2019 moom nag mi ngi woon foofu ca Kébémer ci kanamu mbooloo mu takku la waxee yee kàddu moom nag ci programme am mboole na ci jigéen ñi lu jëm ci congé de maternité waaye it li nga xam ne mooy mbay mi bëgg na jigéen bu ne daal di am tool ni ko góor ñi di ko amee. ma bëgg leen xamal ni yéen ñii di nit ñi am naa yéene torop torop ci yéen ñun gis nañu jigéenu Sénégal ni ñu sonnee. gis nañu Djibril Kébé maire nañu sonnee ku dugg ci marché bii walla nga romb ci yoon yi saax am na fu ñu romb jigéen ñaa ngi ñu yëkkati ay mbuusu gerte kemb nañu lii rek lañu am te a mënatu ci am sax lu ñu suturale suñu njaboot yërmande googu ñu am ci senegal ak ci jigéen ñi moo tax ñu ne su ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne suñu programme li ñuy wax congé maternité mooy jigéen bu demee ba yàlla may ko mu wasin nee nañ congé maternité boobu suñu loi ñetti weer la ko defoon mais ñu nee nañ dinañ ko yóbbu ba mu doon juróom benn weer ndax ëmb dafa métti wasin dafa métti waaye yor doom ju tooy xepp dafa métti lii moo nekkoon xibaaru campagne bi ci biir Dakaractu jaajëfal nañ leen bu baax ci teewlu bi jox leen dig daje suba incha allah bàyyi leen ngeen wéy di suñu programme ci biir Dakaractu